masak jox na Sonko lii ak di fen seen fen yu metti yooyu ren nag yàlla daa def gaa yi pare pare nañ leen xam ne élection yi moom buy jub si bombe atomique fu ne mën na faa jóge dal mën a dal ci sunu kaw moo tax gaa yi ut seeni ant ay seeni détectateur toog di leen xaar gis ngeen Yérim bi muy dem ci Maïmouna Ndour Faye di feni ndeysaan li la waral li li waral nit ñi ne am na lu war a xew rek ndeysaan Ismaïla Madior Fall am na benn waay boo xam ne sax ndeysaan moo ma moo ma moo ma ko kii signalé ndeysaan ni ma Ismaïla ma Ismaïla Madior Fall def na ko ci Twitter am ni Yérim Seck ce soir day dem ci may Maimouna nduur Faye def fa aw waxtaan maanaam waxtaan wu Yérim Seck war a defi ministère war naa wax kon gaa yi ngeen war a xam ne am na lu war a ñëw ci sunu kaw de ñii ñooy ay bandi ñooy ay saay-saay ñooy ay tappalekat dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikh Yérim mu war a dem ci plateau Maïmouna Ndour fay 7TV euh, def fa interview lan moo ci yoonu ministre euh, yoonu ministre des affaires étrangères yow Ismaïla Madior Fall yow li waroon a nekk yow say problème maanaam nga wooma alu booy Malika Brésil yéen moodu muudu yi nekk foofu di ay doomu sénégalais ci yan jafe-jafe ngeen nekk ah lan mooy seeni i lan mooy seen euh, euh, lan mooy seen bëgg-bëgg yu ngeen yoo xam ne bëgg ngeen gouvernement bu Sénégal taxaw taxawu leen ci euh, yéen diaspora Brésil woo waa Allemagne woo waa Argentine ñeneen ak ñeneen yow yaakaar naa loolu moo waroon a nekk tey jii nii maanaam sa doxalin sa taxawaay mais yaakaar naa du bind ci say page Twitter naan Yérim Seck ngay dem set TV ci Maimouna Ndour Faye Ismaila Major Fall yaakaaroon naa ne yow lin lay xaar tey si diaspora bi élection yii nii di jub si nga nekk ministère des affaires étrangères nga gëstu sénégalais yi tey jii nii maanaam ñi binduwul euh, lan moo tax binduwul ñi amul carte d'identité lan moo tax amuñu carte d'identité ci problème sénégalais yooyu ngeen waroon nga waroon a mën a nekk xool tey ñi si diaspora bi ci yan jafe-jafe lan nekk tey ci réew yi ñuy dund mais defu leen ko ay tekkatu dil ngeen ay politiciens ngeen ay nit ñu yàqu ngeen yoo xam ne tey da ngeen a bëgg a yàq réew mi te yàq réew mi paasewul alalu réew mi war a dem ci hôpital yi war a dem ci agriculture yi war a dem ci nappukat yi war a dem tey ci centre yi nga xam ni jigéen ñaa ngi fay def ay formation ngeen jàppale leen alal jooju ngeen di jël utal seen doom yi ay passeport diplomate ci sunu tur ah yóbbu leen ci dëkk yi ñu jàngi ngeen jël alal jooju di ko def ci seen compte yi tey ñoom ñu ciy dund seen caaxaan yi ngeen nekke bàyyi leen ko seen caaxaan yi ngeen nekk ci réew mi bàyyi leen ko seen tappale yi ngeen nekk ci réew mi bàyyi leen ko yow seex Yérim Seck ku nekk war a jël ay tuuma di ko teg ci Ousmane Sonko ku nekk war a jël ay tuuma di ko teg ci nit ba mu des yow yow Yérim sekk yow fii lan la tuumaal dangaa siif doomu jàmbur yoon ñëw dëgg ci tànkam nga génn sa doom fii la ñëw siif doomu jàmbur yoon ñëw dëgg ci tànkam tey nga génn yow yaa nekk tey ci deru gor yu baax yi tey di leen dëggate te yow moomu lan waroon a dëggate yow Yérim Seck doo nitu dara bàyyil ay fen ay fen baaxul ay caaxaan baaxul ay tappale baaxul taxaw leen ci dëgg xool leen li ngeen xam ne tey jii bu dee bëgg ngeen réew mi lii jafe-jafey sénégalais yi ngeen taxaw ci Yérim sekk ku nekk war a xaste ci réew mi ba mu des yow yow sa ndey ji sukk jur la ak sa baay ñoo bokk benn baay yow sa nijaay mooy sa baay sa nijaay bokk ak sa ndey ji la jur benn benn baay moo la jur yow yow kuy xaste yow Yérim sekk yow boo ko gisee danga koo war a teggi ak ñëw ni ko xaste baaxul as gor du xaste parce que jàpp nga ne yow as as gor nga ah mais juddu juddu nu gor waaw yow sey yi gëna a xaram sëy yi gëna xaram njaalo yu gëna xaram yow yirim sekk yow ci nga juddu njaalo yi gëna a xaram ci njaalo yow yirim sekk ci nga juddu taxaw di xas nit ñi taxaw di fenal nit ñi taxaw di tuumal nit ñi loo xam ne amoo ci benn preuve bi sonko tey di inaugurer livre bi place de obélix nga taxaw fa di incarner ay xam naa la saint louis sonko ne amaana doon nga jànge saint louis mais musulaa xam di na yoo xam ne sant seen tappale yi bàyyi leen ko yirim bàyyil ay fen na nga xam ne sénégalais yow ban la weddee dafay yàgg ay jamono nag daan naa dégg yi journal boo uppi yirim yirim yirim yirim yirim poste yirim poste yirim poste yirim poste parce que sénégalais yi ñoo nekk ay nit yoo xam ne tey ñi war a jël seen responsabilité ci réew mi ñoo nekkoon ay nit yoo xam ne dañoo naïf muy nit yi nga xam ne tey ñooy lay doomu daara daanaka bin dugg ci tey ci géew bi di gëstu tey réew mi ñu bokk tey niñ koy doxalee ñu yor sunu réew mi gis ngeen doomu daara yi bin tàmbalee dugg ci yëf yi yëf yi ni tàmbalee changé est-ce que seetlu ngeen affaire boobu parce que ñii ñoo occupé woon réew mi occupé plateau yi occupé rajo yi je suis je cha bonjour bonsoir di di fen nit ñi guddeeg bëccëg di tappale ngeen war a ñëw tey jii wax ci programme indil nit ñi ay argument du ngeen ko def ngeen di ñu théorie rek ah ci diw sàngam Espagne moo ko bind diw diw sàngam ab ab ab kii la palestinien la moo ko bind diw sàngam israélien la moo bind lii diw sàngam yéen ngeen am ay nit yu ngeen mën a jël référence maa xàllaa da ngeen a xeeb seen bopp nekk ay nit yu doyadi tey réew mi fii mu toll waroon na fee passé mais lan moo tax tey Sénégal tey nekk ci jafe-jafe yi ba nit ñi sax di gën a xalaat naan jafe-jafe yi est-ce que du gën a yokk lan moo ko waral seenu tappale seen ñàkk man ak seen ñàkk tey jii yërëm sénégalais yi ci jafe yi ñuy dund bu dee taw ci jafe-jafe yi ñuy dund tey baykat yi buñ soxlaa am jiw ci jafe-jafe yoo xam ne tey bu seen jiw wi saxee tey ji engrais jëm def ci kawam tey jii ba ba ba ba mën koo aar tey jii taxawu leen ci dara ay caaxaan baaxul yirim bàyyil ninga nga mel yirim yërëmal sa bopp yirim xoolal ni nga juddoo yirim xoolal nin la sosee war naa mën a tax tey yow képp kuy xas as gor yow boo ko gisee danga koo war war ne ko xasus gor baaxul ah yow sa nijaay bu bokk ak sa yaay benn baay moo la jur sa ndey nekk ak sa nijaay joo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn baay nekk ci kër gi di njaalo guddeeg bëccëg ñu ne ak ah, ñu ne sëtu Cheikh Yérim Ndumbaan nga ah ay doomi Cheikh Yérim Ndumbaan a leen jur ah ngeen ñu nekk ci kër gi di njaalo gudd di njaalo bëccëg ba nga ne fa pëcc yow kuy xasus gor yow Yérim Seck yow boo ko gisee danga koo war a teggi tey nga taxaw ne da ngay xasaate tey nga taxaw ne dangay tuumalaate sa tuuma yi ngay teg te dara amu ci ay fene kase la fan nga ko teg ngir bëgg a dund te nangu woo liggéey ah ngir bëgg chaque jour sénégalais yi di la gis ci lix ngir bëgg chaque jour ngay nekk ci lix mais Yérim bu fekkee am nga am nga xam-xam dama da dem nga liggéeyi seetaan naa benn interview boo xam ne Dadis Camara moom moo ko def mu ne yow Yérim ci tekk da nga ko doon proposé pour mu jox la ay euh, euh, cinq cent mille d'euros pour nga xaw ma naan ko nga defar image am kii kook yooyu moom moo ko wax public ñëpp di ko dégg arnaque yi nga nekke mooy lan tappale yi nga nekke mooy lan seen fen yi nga nekke yàgg ma jambal jaañ mooy lan ma jambal jaañ moom man damaa yaakaar ne tey jii nii maanaam dafa dafa tiit nekk ci guddi gu bët setagul saa buy fen muri di xanaa yéen du ngeen nekk ay nit yoo xam ne tey jii nii maanaam kuy taxaw lu mu mën a wax baax na mais bu critiqué wul Serigne Touba rek lu mu teg ci seen der bii baax na loolu du loo loolu du yëfu nit lan moo tax ñu naan Pastef Ousmane Sonko ah waa nangam ak waa nangam ak Qatar yu kenn xamul ñoo koy jox ay milliards ak muy dem di ko financer waa Touba pour ñu jàppale ko. Touba kan moo fa mas gis kuréel gu Ousmane Sonko di financé Touba ñoo def seeni kuréel di jël seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm di ko dajale ba mu nekk million ñu koy jox Ousmane Sonko lan lañ jublu foofu noonu di ko wax chaque jour euh, Madiambal Diagne wax na ko fi ci sëñ Bass Abdou Khadir Bass xanaa mënta mënta teggi tuuma yi ñuy teg ci kawam. tuuma yi ñuy tek ci seen kaw xanaa yow bas porte parole mënu mënoo ñëw mënoo mënoo ñëw jug wax ci dafa melni ni li ñuy def ci Ousmane Sonko yàq deram gi ak di wër torox tangem dafa melni da ngeen ci and ak yeen ñun li mo ñu nakari te wër ta demee ni as gor su si penc mi di jaar ci seen tur di leen tudd di wax yoo xam ne tey jii day taalum réew war ngeen a mën a génn tey def ci ay demantir paa di yebal ay nit yoo xam ne dañuy génn naan ay yebalu ay nangam sàngam xam naa li wax ci diw amul tan waxal leen ko yéen ngeen di ko dégg di fi di dund ay caaxaan baaxul ma jambal jaan lii mu wax day fen journal bi ko bind fan ko déggee ñooña dañuy fen ñoom ñoo ànd la tax ma ni ñoom ñoo ma ànd avant Yirim Seck tey jii di dem ci may mun a Maimouna Ndour Ismaïla Madior Fall dénoncé na ne Yirim sekk day dem ci Maimouna Ndour tey Madior Fall lan la séq ak Yirim Seck Yirim lu mu séq ak Madior Fall ah yow Madior Fall yow ministère bi la teg affaire étrangères sénégalais yaa ngi sonn ci diaspora bi tey am ay jafe-jafe këyit am ay jafe-jafe yoo xam ne seen ministère des affaire étrangères moom moo ci waroon a taxaw seen gouvernement yi tey ñoo ñoom ñoo ci waroon a taxaw nga bàyyi ko fa dina dénoncer ay interview yoo xam ne ay kàcc rek leen fay wax bàyyi leen ay caaxaan taragal yàlla yërëm leen seen bopp sénégalais yi dañoo pare ci yéen. askanu Touba ji ngeen di bëggee a diaboliser ak waa kër Sonko yi dañoo pare ci yéen ay caaxaan bàyyi leen ko sénégalais yi bëggatuñ leen li tax bëggatuñ leen da ngeen a sàcc seen alal boole leen ak di leen fen boole leen ak di leen torturer looloo tax sénégalais yi bëggatuñ leen ay caaxaan baaxul réew mi yéen yéen a ko yàq. alalu réew mépp yéen a ko sàcc alalu réew mépp yéen ko def foo xam ne waru leen ko faa def mun leen tuumaale da di jug di weddi seen tuuma yooyu ñu leen di tuumaal indi ci ay leeral ndax lan benn benn yi muy dugg ci seen bopp yi di ci indi ay sikki sàkka am ngeen ci pas de responsabilité am ngeen ko ci responsabilité bu rëy la ci seen ndodd yi ngeen xam ko seen ndodd yi ngeen ñàkk koo xam ab responsabilité bu tegu ci seen ndodd yi la taxaw leen ci dëgg ay caaxaan baaxul ay caaxaan baaxul te xam ngeen ni ay caaxaan baaxul mille 2019 bi ngeen ko fiy def daf ñoo bett mais seen fen yi du jàll de yéen nee ngeen da ngeen a dissoudre Pastef Ousmane Sonko mënta bokk ci ci élection yi du ngeen bàyyi doomu jàmbur ji topp ko di ko fenal di ko fenal di ko fenal di ko fenal di ko fenal ragal ngeen Sonko ragala ragala ragala ragala ragal lu tax ngeen ragal ko élection yu mu dem balaa une ñu toj urne yi parce que sénégalais yépp pare nañ pour voter ko ay caaxaan bàyyi leen ko lu ngeen wax da ngeen a bëgg a réew mi mo taxoon tay ngeen laaj ni suñu melni réew mi am am am ndono la ay caaxaan baaxul bàyyi leen ay fen yirim bàyyil ay fen ay fen baaxul ay tappale baaxul ay tiaxaan baaxul taxawal ci dëgg loo yóbbu sa kër loo tooyalee sa gen boobu bu mu la tax tey di jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci gor goo xam ne li ngay wax ci kawam amul loolu moom mooy dëgg sunu genre yi bu ñu demee ba génn di wax seen genre yi nit ñi daan déglu pour ñu gindi leen ñoo dem ba mënatuñoo wax nit ñi dëgg ñoo dem bay kompaloog ñi nga xam ne tey ñoo waroon di kompaloo ngeen génn di ko leeral amu ci benn journaliste boo xam ne dem nga gëstu tey kooku biddu loolu ñoom yirim génn di ko wax tey kooku mooy kan fan la jugee li muy wax fan la ko teg ñan la ko loobareel defu leen ko da ngeen koo dégg rek génn ci plateau yi bu koo def débat loolu du débat bi li ngeen bëgg def débat du débat bi du débat bi lii ngeen bëgg a def débat bi du débat bi